na ko mu ne mu ngi xamal président na ko suñ siyaare bi ren mu ne suñ siyaare bi ren ku ñu ko bëgg a xañ ku ñu ko bëgg a xañ bi laa ñu xañ la sa bakkan ñu xañ la sa bakkan wallaahi lépp soob na yàlla bu soobee yàlla bu soobee yàlla man mii mu ne moom mii maa ngi ay soldat yu jinne yoo xam ne moo ngi ay soldat yu jinne yoo xam ne te su ko weddee te mu ne loolu koo weddi moom président bu ko wallahi jinne fanaan ci palais ba léegi léegi léegi te damaa dégg këy. mu ne moom dafa a gàmmu ren. dañoo bëgg ko teg. mu ne loolu fu mu ko teg. président. président. barki def anniversaire bi. dafa xumb. dafa xumb fees dell. ñii fecc ka tëb. ñii fecc ka tëb. waaw li tax ñoom ñuy def anniversaire. lu tax ñoom seen anniversaire ñi koy def. ñu def ñoom ñun. suñ def suñ suñ gàmm. ñoom ñu ne ñun suñ gàmm gi duñ ko def. fu ko teg fan la ko teg mu ne président bu ñu fontoo mu ne loolu daal président Seck mi nee na bu ñu fontoo man nag bëggalu ma ko dara mu ne moom nag bëggalu ma dara bañ naa ko ba ñaanu ma ko audience mu ne bañ na ko ba ñaanu ko audience bëggoon naa ko sax bëggoon na ko sax ba bëggoon koo demande ba bëggoon koo demande ngir ak cofeel demande naa ko sax demande na ko sax ngiroon cofeel ngir ak cofeel waaye fu ne bëggatuma ko waaye loolu bëggatut ko mu ne du ma ko ñaan audience mu ne du ko ñaan audience te su ma ñaanee audience du ma ko te bu ko ñaanee audience moom du ko may bu seetoon ci rab ba ko ala mu ne bu seetoon keroog goppalaak Ibrahima di ko dugal ca néeba di ko yàq. wallaahi boo bu ne daaw. maslaa rek taxu ñu def ko. bu dee maslaa rek moo tax ñu foog mu siyaare bi. waaye ren bañuñ ci dara. waaye ren nag bañuñ su fekkee. su fekkee. bëgg na xeexab jinne ak soldat yi. bëgg na xeexab jinne ak soldat. bilaay ren dana ko gis. ren dana ko gis bu fekkee bëgg na ko. bilaay dana ko gis. wallaahi dana ko gis. te suñ ba yàllam bee. te bu ne suñ ba yàllam bee. suñ ba yàllam ñeseen bee. ba yàllam ñeseen bee. mu nga fee dell mu si. lépp lu wër ñeseen. lépp lu wër ñeseen. mayetuma benn om du tali bu fa dugg om du tali bu fa dugg danaa la soppi mbaam di jaay la dara di la sëf danaa la soppi mbaam di jaay la barab di mbaam di la sëf wallaay sëñ bi ne la wax na ko ku ko weddi ku weddi loolu weddi ma rek mu ne ku ko weddi rek nga ko weddi su ma la defoon mbaam ñu jaay la su la defoon mbaam ñu jaay la seen oto yi seen oto yi oto bu ma ci romb oto bu ko ci romb jinne yi mën nañ ko soppi gunóor muy daw ci tali jinne yi dañ ko soppi gunóor muy daw di dugg ci biir àll président président. dañ ko dañ ko dañ ko soppoon. sëriñ bi nee na dañ laa soppoon. yoolu óolu la. wóolu la. jox la réew mi. jox la jox la réew mi. nga ànd ak tubaab bi bon yi de. nga ànd bi bon yi. bu bon bii. français yu bon yi. dañ la wutal ay noon. ñi lay ay noon. utal nañ la ko. nañ la ko. ku la bëggoon. ku la bëggoon. mi ngi dégg dégg. mu ngi dégg dégg. ña nga ca lew dañu seen foofa nag mere wu ñu njiit réew mi Macky Sall ndax lam leen defal benn président musul leen koo defal imam bu lew nañu seen arabi ñes moo wax li ni mel yokku ca ne président Macky Sall waxut benn yoon ne lew nañu seen ren du ñu amal seen ziyaara ba ñu teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak Alfayda coow li nga xamee ne wax nañ ko ci mu jëm ci gouvernement bi coow loolu moo waral sama wax ji lépp yii nag sama kër la man sañ naa leeral ne Macky Sall ñun ñaseen buñ ko waxee wax ju ñaaw gorewuñ ñun kër xalifatul xaaji Mohammed ñas buñ janoog président Macky Sall wax ko wax joo xam ne dégg na ko dégg ko gorewut ndax mu fi def mësul am nun mu ñuy recevoir te yëkk ñu individuellement kenn ku ne mu lay fayal say soxla li tax ma wax ko it kenn kenn kiiwu ma pression yi bëri na téléphone yi bëri na ma xam ne yàlla daf na yonent bi seen yàlla yi caaxaan yi ñu def ci kaaba gi bu ko saaga de boo ko saagaa ñoom it ñu saaga sa yàlla kër gi yàqu ca kër gi mësul am lii raison boobu moo tax may def lii makk sàll day kër gi merewuñ ko te man maa gën a placé quiconque pour wax lool ñaareel bi ziar bi tax ñu koy wax ziar bi makk sàll day waxoogul kenn ne ko bu leen ziar déedéet ndax bu ko waxoon it ñun am nañuy nawle duñ tëb ne nangam nangam fekkoon na bu nee na bu leen ziyaar ne Touba bu leen màggal bu màggal poroxaan am bu nangam am ziyaar nangam am na am wala nangam dañuy seet suñ nawle yi waaye waxagu ko ci le contraire sax wax na sax bu boobaa dana ci def ndimbal def ci nii def ci naa def ci naa duur ne nag loo xam wax arab nee na ku xam lépp wax lépp nee na yàq nga lépp président Macky Sall ndax yonent moo ne dee leen ooye nit ñi seen i garaat waaye am na ñoo xam ne baatu président Macky Sall sax réy dañ koo wax te yàlla moo séddale de di wax taalibe yi président Macky Sall defut ci kër gi luñ koy meree man politique lu mu ko man yaakaaruma ma yàlla jox teraaga booba kiiwu la tey ji mi ngi dëpp ci rek ne nañu dellu fa nekkoon. naka noonu tamit porte parole bu leew nañu seen Ahmed Babacar Niass daal dina yëkkati kàddu leeral ne lew leew nañu seen ca Blaise Diagne ba ci Macky Sall mosuñoo contre état kàddu yi ñu doon dégg nag waxtaanu biir néeg la réseau sociaux yi ñooy ñu ko génnee Cheikh Ahmed Babacar Niass porte parole bu leew nañu seen. ñu lu ko ci jokkoom ak Alfayda. nit bu nekkee ci xaal la muy wax ak na muy defee bokk la nekk ci xolam te nit ñi dañ lay topp ba dugal la foo xam ne boo amul ko fa nekk rek dana indi beneen problème ku nekk wax wax ci ëpp ci bopp sëriñ bi mu génnee lii ndax sëriñ bi bu amoon lu mu doon wax lu officiel ko sëriñ bi bu doon sànni xeer wala muy xuloo wala muy xeex day woo média bi wax ak ñoom ne leen lii laa bëgg te kenn mënu koo dig waaye benn caméra génneewu ko lu dul réseaux sociaux yi amul benn organe de boo xam ne génnee na ko lu dul lépp lu man di doon nekkut lu ñu waxtaanee rek mooy li nekk ñun dey kër maam Khalifa Laaji Mouhamad ca Blaise Diagne ba ci Senghor Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade ba ci Macky Sall mii mosuñoo nekk ñoo xam ne dañuy contre état mais wax ji jotagut siyaare mois de mars la Cheikh jaan xalifa bi nitu jàmm la nit ko am kersa la nit yiw la nit la koo xam ne sans façon nit ku wetam la ku ñëw mu recevoir la buy amul sax bëkk nekk nit koo xam ne tim bàyyi na xel njool njaboot njaboot gi mu bàyyi xel nag moo tax tey ñii lenn ci njaboot gi garab ak parti bii di parti Macky bokk nañ ci bokkoon ci ñu ko fi jëmbat ñun nag duñ jëmbat garab ba garab gi naat meññi nga war cee jëriñu ñu jël suñu sémmiñ wala ca jaasi ñu ne nag ngay gor garab ga man nekk bëgguñ suñu kër tumuranke te am na loo xam ne état ko man am na loo xam ne sëriñ ko man kenn ku ci nekk nag dana soxlaal moroomam nu ñoo ñàkk ànd lii yëpp nag du suñu kàddu kàddu Mawla Cheikh Ahmed Tidiane la gannaaw bu ñu waxtaaneek moom concerté wu ak moom mu yebal ñu ne nañ na mu gën a rafetee ak na mu gën a baaxee li passé passé na jeex na afalaaw ama déggati ci rajo buñ ko déggati ci télévision buñ ko gis di journal jël nañ suñu responsabilité nag ndax suñ kër bëgguñ ko ko yàq lu nekk am na fu nekk lu nekk wax nañ ko fu nekk te dañ koy sutural président daal Macky Sall na xam ne fii ci lew na ñeseen diwul ñoo ko fii gannaawal dugul ñoo ko fii xeex dugul ñoo ko fii huññi dugul lenn loo xam ne war nañ ko seq ak moom lu dul teranga ndax bàyyi na xel kër gi konte bàyyi nañ ko xeet président Macky Sall Alaaji moo ñu ko dénkoon mu dénkuñu ko kon ci ji jamono fi ñu toll lii lañ bëgg a weexal kër gu nekk fu nekk famille bu nekk am na góomu gannaaw nañ leen bàyyi suñu góomu gannaaw kenn wokkalati mën nañ ko wokkal suñu bopp